maa leen nuyu mbokk Sénégal man la Coumba Gueye aljuma création aljuma création tey ñu sees la ci korité bi yéen nga xamante ni nelaw leen guddi nelaw leen ba bëccëg bëgg tey nit ñi tey am seen mbégte ak seen bànneex tey la korité am na ñoo baal am na ñoo tooñ am na ñoo la tooñ te yëgoo ko tey occasion la nga baal leen ak ñoom ñoom ñoom ñëpp ñu ngi jàkkaar dëgg la maa ngi baalu ak ñi nga dama leen ñi nga leen ma te yëgu ma euh, yëguñu ko tamit maa ngi leen di baal ak waaw maa ngi jéggal ñépp te di ñaan tam ñu jéggal ma man it ndax nit motul waaw yàlla rek. léegi ajuma ko tuuti ah, sama yaay laa ko tuddee ndax mooy sama lépp ginnaaw yàlla lépp la ma am moom la waaw. di ko ñaanal nag euh, fi mu jógee euh, fi mu nekk gënal ko fi mu jógee. noo ko dundee ci ci ci. ci korité bi parce que dégg naa ñu ne ñawkat yëpp ñu si bëri dañuy téye ñaw jàmbur yi ñu ngi sant yàlla moom ndax ñaw yëpp moom pare na moom macha allah waaw fu mu nekk moom pare nañu ñaw yëpp pare na tardé luñu kenn. yëpp pare na waaw yëpp pare na ñu message boo jàllale pour Sénégalais lan lay doon ah, di wax suñu mbokk tailleur yi tamit euh, ñu gën a góorgóorlu rek te tamit client yi tamit euh, mun ñu comprendre tamit. waaw ndax ñun tamit ñoom leen fi nekkal waaw. waaw kon ñu ngi lay jaajëfal waaw kay.